benn waaye ngi nii boo xam ne lu nekk def na ko ci ay caaxaan ci kaw suuf waaye bis daa romb rek ab xale sedd bi jàpp ko muy kof kofi moroomam yi di ko romb yi daw sol dàll yu diis sol ay kawas sol mbubb yu diis faalewuñ sedd bi di foog mu fekk ko ne kii mu ne ko lu la teg lii mu ne ko damaa amut ma sol mu ne ko ndax lan mu ne ko sama bàyyee fi nekkatu mu jël kaalaam nga wodde ko ko ba mu daj mu ne ko nakam mu ne ko tawarkal fi nekkee maa ngi sant ci guddi googu bëccëg guddi ka ca topp waa ji gént bis penc taxaw ñu atte ko ci lim doon def ba ne sawara yayoo mu xool xool amul pexe mu dànkal dànk mu mu muy temp wuti sawara ay yar topp ko waxul gaawal gaawal gaawal gaawal nguur soose dikk ne kii bàyyi leen ko ndax ba ma raflee moom ma wax doon ña koy yóbbu ne ko amuñu loolu amuñu ndigalul bàyyi ko de yóbbu lañ ñëw digal yàlla woote ca kaw ne eh bàyyi ko mu dem ajjana karaamatan lil yatim terale ko jiriñ boobe mu woddoon bis cib set mu ne xefeet ah xawma fu ma ko gisee te de waaye ku mel nii moom fu ma ko gisee talal ko ndax lii moom lu wér la